ñu ngi may signaler nii euh, le secrétaire exécutif d'Amnesty Sénégal est en ligne muy monsieur Seydi gasama mhm. dañ ko doon jiimoo sànq jotuñu ko mais nee nañ ma disponible na donc bu ñu ko mënee am euh, Alassane bu ñu mënee jot Seydi Gassama Alassane euh, de la régi donc ñu ñu ñu ñu wax ak moom allo. oui. oui bonjour. bonjour monsieur Gassama. biram Birama Camara de la 7TV. waaw Birama na ngeen def. ñu ngi sant ça va ngi ci jàmm. waaw mais dañu la bëggoon am suñu plateau moo mais jotuñu la woon téléphone xanaa kay ñu wax ci ci buumu jokko bi ba beneen yoon rek nga wax ñu démb li xew euh, ci réew mi mu di procès bi ñu bëri doon déglu ndax yow da nga koo déglu à distance wala yaa ngi woon tribunal wala euh, nan nga ko dundee daal euh, en tant que défenseur des droits de l'homme bon procédure man dema moon tribunal am na suñu naataango yoo xam ne dem nañu tribunal euh, suivre naa ko tamit euh, ci média yi comme ñëpp euh, muy procès boo xam ne ñu ngi ko doon xaar parce que coow li dafa yàgg yàgg na lool te mun na wax ni mooy dossier boo xam ne Euh, pratiquement euh, lépp li nekkoon ci biir dossier ñu présenté ko woon dëmb euh, Sénégal yi xamoon nañu ko déjà ojo yi tout cela xamoon nañu ko déjà d'après li ma jot a waxtaan ak avocat yi audio yi nga ñoom ñu fa nekkoon mooy les audio yoo xam ne moom la ñu jotoon a déglu et et d'autres n'est-ce pas matériaux yoo xam ne Sénégal yi on était déjà courant comme les certificats médicaux et donc mun naa wax procès la boo xam ne euh, daanaka avant même ñi koy tëgg Sénégalais yu bëri amoon nañu déjà seen opinion ci ci ci ci ci procès bi. kon euh, li mu mën a wax rek mooy euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo koy atte dañu am une lourde responsabilité par rapport à ce qui va arriver dans ce pays dans les prochains jours. waaw quelle que soit décision bi ñuy jël na doon une décision boo xam ne c'est basé sur les faits. uniquement les faits hein parce que dañuy wax niki ki day àtte selon ses intimes convictions waaye mënoo àtte tamit en ignorant les faits ci kaw fait lañ ko war a basé uniquement des faits et je crois que suñ ko àtte fii les faits décision bi su dee décision bu jaar yoon la euh, mun naa wax ne réew mi euh, duñu am problème waaye su dee décision la boo xam ne dina fi indi ay controverse booba ñi nga xam ne ñoom ñoo àtte ñoom ñi am responsabilité ak état en tant que défenseur de droits de l'homme euh, euh, casquette boobu boo ko jëlee yow euh, est-ce que jàpp nga ni muy kii accusé muy ki ñu tuumaal est-ce que yaakaar nga ni droit yi c'est respecté des deux côtés non je pense que d'abord procès boobu kenn war a ko woon atte sans la présence des avocats kenn war ko atte soo dee avocats yi nga xam ne ñoom la avocat Ndeye Khady yi dañoo génne tribunal Euh, n'est-ce pas euh, juge am na obligation désigner un avocat commis d'office te avocat commis d'office boobu su ñëwee tamit war nañ ko may temps pour que mu xam dossier bi bala mu mun ko plaider euh, loolu loolu mooy loolu mooy dëpp ak norme internationale yi xoola affaire Hissène Habré Hissène Habré bi avocat yi nga xam ne ñoom ñoom la amoon désisté mais les chambres africaines dañuy désigner ay avocat commis d'office avocat yooyu bi ñëwee mais dañuy laaj pour que ñu repousser le procès pour que ñu mën a imprégner du dossier balaa ñu koy atte waaye euh, li ma li ñu jot a gis dëmb mooy avocats yi nga xam ne ñoom ñoo constitué pour Ndeye Khady depuis le début ou bien depuis euh, première renvoi bi ñoom ñu dañoo gën a dem seen ñoon avocat bi nga xam ne moom la ñu convaincre d'office ñëwul tamit donc en matière criminelle la femme s'est défendue tout seul te loolu lu doy waar la lu doy waar la parce que pour man musul am fi ci Sénégal ak quel soit ni ñu mën a interpréter loi bi mais en matière criminelle dañu war une victime sauf si elle le veut moom moo ko ñaan nee na kenn défendre ko day défendre boppam am na état am na obligation euh, fexe de mu am ku assister te loolu mënoon na am dëmb si évidemment ki nga xam ne moom moo doon visiter procès bi il avait preuve de sérénité et de discernement parce que renvoyer procès bi d'une semaine permettre que Ndeye Khady am ay avocats yu constitué loolu dina crédibiliser procès bi parce que tey ak ñu mun te wax quel que soit le verdict n'est-ce pas coow rek lay andi parce que encore une fois ndaw si n'est-ce pas euh, amuloon kenn ku koy défendre alors que évidemment l'autre partie la la partie civile euh, présumée ñoom amoon nañ benn xam nga ñaar xam nga ñetti avocats yoo xam ne ñu ngi taxawoon di di koy défendre je pense que ça a été vraiment le, la grande décision de ce procès. Et je crois que c'est surprenant, c'est même curieux que, évidemment, le juge ait décidé euh, euh, de juger Mme Attenbirmi sans qu'un des alliés, am avocat Bahan taxawal D'accord, M. Gassama. Peut-être une autre question Maria, si vous avez une question. Non, c'est pas grave, c'est bon. Euh, Dañu wax euh, sur place. Ah, il a plaidé. <laughs> Il a boudé, l'avocat commis d'office aussi a boudé. Il a boudé. Il a boudé. Pourquoi il a boudé Il certainement parce qu'on ne lui a pas permis de, de, de, de on n'a pas accepté Parce que biñ la biñ la commettre d'office rek nga ñëw ñu ne la kaay plaider plaider benn affaire en matière criminelle mais soo nekk avocat bu responsable doo ko nangu parce que balaa ngay défendre sa client foog nga xam dossier bi eh, doo ñëw rek ñu la affaire baa ngi nii dañ la dis mais loolu mooy euh, euh, d'abord mais sa euh, client fas yéene ñu ko défendre parce que balaa nga koy défendre il faut nga xam lan lañ ko tuumal xam dossier bi xam naka nga koy taxawalee n'est-ce pas pour que évidemment euh, tous ces droits soient respectés waaye su dee la andi rek la procès baa ngi nii la pour nga def euh, benn benn renvoi pour nga xam dossier bi mais booba da ngay donc loolu yëpp tax na de quelque soit verdict buy am n'est-ce pas dina tey xelu Sénégalais yi. ndax cette rigidité ce manque de cette rigidité ce manque de de, de disons de, de flexibilité euh, ou même ou même de sérénité hein, dans la conduite du procès dina tax ba évidemment coow coow li du du jeex ak verdict bi ñu am le premier jour. Seydi Gassama nan nga gisee posture Ousmane Sonko mi refusé euh, comparaître. bon c'est ça c'est sa responsabilité man jotoon naa wax ci interview bi. Euh, ne su ma ko mënoon yedd dinaa ko yedd mu ñëw euh, ci procès bi waaye tamit argument yi mu avancé argument yu am solo la parce que mun naa wax état Sénégal seen euh, des par rapport au parti assumé wu ñu ko parce que xoola kaw docteur Gaye docteur Gaye depuis presque un an mu ngi am ay menaces ñun ñëw na seet si ñu man bind naa ministre de l'intérieur au mois de décembre yónni ko ay preuves matérielles des agressions dont M. Gaye a été victime wax ko affaire sécurité M. Gaye tontuñu monsieur Gaye le dix mai bind na procureur nee ko dama fas yéene ñëw ci procès bi waaye dama ragal sama kaarange te koy argument tontuñu ko ah, mu mujjee dem di contracté benn société privée di fay xaalis bu bëri n'est-ce pour que sa sécurité soit assurée loolu déjà manquement bu grave la parce que témoin n'est-ce pas dafa nekk lu central ci benn procès pénal su dee assurer sécurité témoins yi loolu mooy bëgguñu témoins témoins yi ñu def li nga xam ne moom lañu xaar ci ñoom deuxièmement Ousmane Sonko ñu gis ni violence bi nga xam ne moom lañu exercer contre lui euh, chaque fois que jóge kër di dem te li nga xam ne cosaan la ci biir réew mi mooy muy jamono Ablaye Wade muy Idrissa Seck muy Macky Sall képp ko xam ne amoon nga problème ak yoon soo demee tribunal wala commissariat wala brigade de gendarmerie say ñoon ño lay gungi sa ministère dañ lay gungi kon li xam ne ab gis nangoon na ko Ablaye Wade Abdoulaye nangul ko ñoom Macky Sall ak Idrissa Seck lan moo ñu koy bañ a Sonko nest ko violenté adduna bi yëpp gis ñu ngi tëjee ses et cetera kon il a le droit dama soxla sécurité suñu ma assuré sécurité dinaa ñëw s'il y a pas ñu may rey ci yoon bi loolu tamit c'est légitime comme wax ko mais quelle a été notre déception d'entendre le ministre dire oui suñu yoon nekku ci et su bëggee ñëw na ñëw ñu ngi négocier dem en matière de sécurité mais c'est irresponsable parce que état am na droit assurer kaaraange képp ku xam ne doomu Sénégal nga te nga am problème par nga am crainte par rapport à sécurité nga saisir état état am na obligation assurer sa sécurité kon di wax ne waaw ñoom ñu négocier ak ay ay ay ay ay ay accusé et cetera je crois loolu dafay wone une certaine mauvaise volonté de la part de l' état ah, ñoom sax bëgguñu woon soo ko ñëw taxaw ci procès mun nañu wax bëgguñu ko parce que ñu ko bëggoon euh, jëlee ay garantie est ce pas jox ko ko. loolu loo xam ne lu difficile d'accord monsieur gasama kon euh, ñu ngi lay gërëm di la sant. ci sa intervention euh, di la jox euh, peut-être rendez-vous beneen yoon. espérer nga ñëw ci plateau bi. pour gën a yaatal merci beaucoup.